Mouhalim Info di groupe information générale internationale ba tax mboolem xew-xew buy xew ci biir réew mi ak ca bitim réew mën ngeen ko fekk ci sunu chaîne YouTube bii di Mouhalim Info doxantul ci YouTube bi nga tàppe Mouhalim Info bul fàtte nag abonné bés kolos bi ci sa loxo ndeyjoor lii mooy waral dara dootu la raw ci liy xew ci biir réew mi ak ca bitim réew. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa Mouhalim TV di nuyu mboolem ñuy suivre ci mboolem plateforme yi nga xam ne Mouhalim am na ko di nuyu waa Mouhalim 1 ba 5. ñu bëgg am rek benn jàngat bu gàtt bu ñu am ci actualité bi am ci Sénégal actuellement nii nga xam ne daanaka mën nga ne mooy cëslaayal réew mooy asas mooy asas yi yetul xaw yeeyu yoo xam ne moom moo téye bépp nation moo téye benn ba ci ba ci religion bi sax moo ko tënk ba ci maanaam li nga xam ne mooy déterminer ëllëgu nit ñi moo xam bu ñu doonee ay ndaw ak bu ñu doonee ay mag ak bu ginnaaw bu ñu faatoo sax ak atte bu leen seen borom bi atte gannaaw moom moo ko déterminé loolu mooy loi yi leen liyee yonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yusaqqakum mu ne su fekkee ne jël seen biir tënku ko institutionnalisé ko def ko muy constitution dina ko dikk ngir bëggoo ko de tax rek bëgg ko yàq bëgg a dagg buum googu ne rey leen ko actuellement nag ñi nga xam ne ñoom ñoo incarné institution boobu ñoom ñoo bëgg a doon ñëpp nga xam ne ñu mën a koy xëtt yi nga xam ne ñoo nekk ci cour conseil constitutionnel ñoom li sëñ Tuubaa waxoon ci benn euh, naar bi mu ne ko sammaani abi tafaulan laa xayra wala sammaani bi abi tafaulan laa xayra bi mu ne ko man maay taajul aarifin sëñ bi ne ko xaaral tuuti mu ne ko mënumaa xaar damaa yàkkamti sëñ bi ne ko xanaa kon ni nga wax tuddoona mu ne ko sama bàyyi ma ko tuddee ngir gàng waaye ñoom tur wa ñuy tuddee cour conséquence ak leen wooy ay magistrat ko xool seen doxalinu tey ji war ngaa xam ne xel mu rafet képp nangu ko waxuma laa ak ab boo xam ne techniquement ci lañ koy décortiquer mooy ñaari liste yu di ko taxaw ñaari liste yi benn baaxu ci man loolu mooy li ma gëm liste Yewwi Askan Wi baaxul liste Benno Bokk Yaakaar baaxul yañ njëkkoon a dugal nga xam ne Déthié Fall dafa def benn recours booba liste baaxul lañ ko ca jox comme dogal itam baaxul Benno Bokk Yaakaar seen parrainage ëpp yi ñu dugaloon lañ ko ca jox comme dogal it baaxul mais ñu defaat itam mooy ñoom bañ tàmbalee wala del liste liste Yewwi Askan Wi mooy Barthélémy Dias ca Dakar dañoo wàcc yoon wàcc yoon kooku nag mosuñoo wàcc di wàcc yoon dafa mel ne ci ay taxdiraat lañ nekk daal ak i làmb ak këmufale ak di def benn euh, façon lijjanti nu ñuy lijjantee président bi am di mu bëgg loolu nag maanaam pour man mooy li war a am mooy li nga xam ne mooy li maanaam man la ma ko doon bett mooy ñu dem fa dëgg feeñ fa mooy dëgg feeñ ca cour conséquence lu ma doon bett waaye mbir boobu doo ko fondation na ci ay caaxaan bëgg mu sottee indil ak dëgg mun dane cest à mooy li ñëpp seq nga ne président bi moo am prérogative di leen nommer di nommé ña fa nekk maanaam nomination ya jaarul yoon la ko tey jaaroon mooy ku koo xam ne dafa retraite ñoom ñoo wax ne ku retraite da ngay dem retraite su fekkoon ne dañoo amul ku jàng lañ jàng wala ku xam la nga xam nga xam ne mën na fa mën dañ faa wuti tantan ñu maintenir leen en ngir ñu wuti ñooñu waaye loolu na fa waaye am na fa politiquement rek ñu bàyyi leen fa parce que ñii ñooy ñi nga xam ne personnellement ñoom amuñu bañ ci dara amuñu bëgg ci dara li bëgg lañ bëgg maam bi bëgg lañ bëgg li lañ bañ loolu ki gën a gàttaxal sax xam na ko ñoom ci seen biir magistrat am na ñoo xam ne bu leen bu leen Macky Sall tegoon fee di leen fay milliard mënut a wax a wax a wax a ba maanaam détourné leen ci seen ambition ak seenu jàng ak seen xel loolu mënu ko ñooñu ñoom dañ leen di segg ñun ay doxkat la ñooñu ci dëkk yu sore la ñu leen di yóbbu ñu leen fa àttaloo atte dañ leen di àttanoo mooy xar muñ sàcc wala ganaar kuñ sàcc et cetera waaye mboolem ñoom seen langue politique googu la jege fa ba fay at parce nañ ñu fa nekk ay risque ci lañu ci ci loo xam ne mbooloo ñoo ko sax waaye Yewwi Askan Wi tey jii bu ñu daan seen liste baaxul loolu moom wax na dëgg yi daan yow daan liste baaxul waaye nag bu ñu nee liste Benno Bokk Yaakaar baax na si liste suppléant yi moo am problème loolu moo dul dëgg cest à ñaari mbir yoo xam ne atte bi benn la war a doon mu wute li borom xam-xam bi naan yaa adala naas illa fi muhamalatihi fii kal xisaam wa antal xasm wal xakam mu ne yow mi nga xam ne yow yaa doon ki ñuy tàgg ci maandu ne yow maandu yow la war a dëppee nee na yow laa xulul yow laa amal problème te bi atte ci say loxo itam tegoo ko ci yoon waaye loolu loolu loolu du xaru du kiimaan parce que am benn arab bu wax ne euh, dafa am benn arab boo xam ne dafa wax ne isa kaan rabbul bayt lit du fi daari man fala abili sibiyaani fi xaalati raxsi maanaam nee na borom kër boo weree tamaang dënd di tëgg ko fecc nen xal di ro di tëgg ba xale yi jógee taxaw di fecc bu mu def kenn problème Sénégal nag actuellement ñu ngi koy faire face problème boo xam ne suñ ko bàyyee mu jàll nañu xam na ñoom amatuñu république royaume sax amatuñu parce que royaume seen minimum danañ ko organisé noo xam ni ba ci Maroc gii boo demee seen législative la bàyyi ñëpp jàll. soo demee dëkk bee ñu wax Espagne dañuy organiser seen i élection mu jàll seen i législative boo demee Royaume-Uni aussi la même chose loolu moo fa am démocratiquement dañu ko organiser boo demee Pays-Bas royaume moo fa dañuy organiser seen législative démocratiquement ñun nag bu ñu naxee république république bi lañ ci jublu mooy man di suba France France di am ay choix ci nit ñoo xam ne maanaam seeni bopp lay jël formanté ko ba dañuy nekk nit ñu ñuul waaye duñu cerveau yi ñuy yor cerveau yi nit ku gëmul nit ku ñuul lay doon nit ku amul dara ragal yàlla nit ku amul dara lu muy sedd ci diggam ak population bi ko yàlla booleel ne itam ni ñu koy formanté mooy du gëm lu dul France gëm du bëgg lu dul France bëgg du leen nit ñooñu boo leen xasee am ban problème nga war a am mooy fexe leen fa jël nit ñi nag am nañ xalaatab jëlee leen fi léegi nag léegi nag ñoom ñu tëggal seen yeneen loi xam ne bu ñu bàyyi nit ñu dem di voté massivement ñu mën nañ faa jëlee ñu daal di leen sàkkal loi yoo xam ne du ngeen mën a doon ay candidat ci ñi ngeen soit ci misaal ku mel ni euh, Karim Wade ci misaal ku mel ni euh, Khalifa Sall ci misaal ci misaal ku ni Thierno Alassane Sall ci misaal ku mel ni Malick Gakou Sénégal ba ci ki nga xam ne dafa yor sareetam di dawal képp dañ ko waroon a permettre saa su bëggee laajum réew dem laaj ko saa su bëggee raaj am réewam dem laaj ko léegi nag ñu dem teg fi parrainage bu ñu amee seen parrainage teg fa seen siège teg seen ministre de l'intérieur muy tànn ñuy dem ak ñu dul dem ñi nga xam ne mënuñu leen tey ci parrainage ñu leen di vérifier noo xam ne li mënuñu wajaal c'est-à-dire tegal leen problème yoo xam ne ñoom sax dañu koy am di tegal ay tamp yi seen siège yu leen di valider seen seen liste Sénégal nag bu ñu toogee ba gis ne lii nii mën nañ ko wéy di ko muñ maanaam ñu wéy ci maanaam war a jàng te doo ne ba demee Japon seen passeport ñun suñ passeport diplomate ñetti réew la mën a dem ñetti réew képp mën a France mën a dem euh, ak réew yi sax ñoo ñoo yi ma réew yi man laa tax te ma dikkee ñaa moom moo moo ko négocié woon te loolu France moo moo ñu moo ñu dem ci ay ay ambassade la may du ma dix personnes léegi ñun loolu loolu ba kañ te américain bëgg tukki da jël say bagage dem dugg dugg ci avion bi dem tukki ñu nag américain bi lan moo ñu séparé xanaa nit du nit xanaa wàccuñ ci senn suuf si innal arda lillahi yuris man yasaa min ibaadi wal aqibatu lil muttaqin nañ gëm loolu ressources yi ñu am amul benn réew bu ko dajale amul benn réew bu daj ressources yi ñu am te ñun ñooy réew mi gën a walaa kaana kenn nañu ko teg muy France bu fekkoon ne dañoo bu fekkoon ne ressources yi état bi mu ci am bi budget de fonctionnement seeraayu dund bi du demee ni tey jii annoncé nañ ne ministre bi yor wàllu énergie nee na dañuy yokk gasoil bi dañ yokk pétrole parce que problème euh, baril pétrole dafa aju ñun suñu yokk dafa nekk luñ luñ ci ay baril pétrole et cetera ñun ñoom dañuy xool ba xam ne seen 4 x yi li war a jël ci essence ci weer bi war naa yokk seen oto yi njënd yokk na

boo xam ne su ma ko waxee ñu dégg ma mooy jëmmi élection législative yi saye boo ñu annulé ko parce que man xam naa ne fa mu jëmee Sénégal du gan ndax ñii ñu bëgg a dox seen digg ak élection législative yi man wóor na mën a jaral na seen bakkan kon ñu dem rejeté ñëwaat incha allah. saa yu nawet masaana jub si sama fit wi du toog ndax di tiit ay kuppiir yu dul jeex waaye léegi damay gundaandaat na mu ma neexee ak waa Zenetech Group Zenetech Group di këru liggéeyukaay guy yëngu ci wàllu électricité ak plomberie mboole xereñ ak xarala ak jàmbaare seen compétence ci étude ak réalisation maintenance ak entretien moom kenn naattablewu ko installation courant fort ak faible ba ci climatisation ngir seeni kër wala seen place mucc ci xeeti lakk ak yu ni mel seeti leen waa Zenetech Group. ñu ngi gërëm waa Régis jërë ngeen jëf kon ñu jàll ci actualité internationale te tënku. problème bi ma waxoon ci début guerre bi defe naa ku doon déglu xam nga ni waxoon naa leen li américains yi bëgg mooy jël adduna bi def ko maydaanul xitaal protéger seen continent bi fépp di takk ñun fépp di takk ñu am ñu am maanaam benn euh, ñu am accès ci ressources naturelles yi ne ci adduna bi ba pare nit ñi daal di lompañ loof boo defee ñoom ñi avancé comme nam demoon avant parce que guerre mondiale bu njëkk ba américain na lañ def dañoo toog seetaan ba nit ñi lay tëkkaaf ñu daal di def intervention bu ndaw guerre bi daal di ñu fare woon ndam te mel moom lañ ci lañ bëgg dugalaat nit ñi waxoon naa gis nga Europe insécurité ba fa jëm ñoom xam nañ ko ñoom européen insécurité alimentaire am nañ ko insécurité énergétique am nañ ko et cetera et cetera parce que Allemagne bu ñu demee ba seen président di ñëw Sénégal ne day négocier wàllu pétrolière et cetera dem fa na ci odde dem ba ca Algérie ñu leen di neex am nañ am nañ problème ku leen ko yóbbee lu dul benn benn problème bu ndaw damay bokk otan ak duma bokk otan a indi problème mu Allemagne benn gaz bi daan jóge Russie daa dugg daa ko ko ci mu perte te arrangé ko woon avant bi ñu nekkee ci seen problème yooyu Allemagne lan la doon wax mu a dugg ci embargo bi France aussi la même chose Royaume-Uni aussi la même chose ñu ne ci situation yi armée arme yi nag di jóg Europe di jaabaa jonk nu mu la neex dugg ci ay bateau di dugg ci ay avion et naan day dem Ukraine ngir ñu jël Europe ñu def ko benn may daanul xitaal maanaam terrain de guerre boo xam ne Europe moom dafay am insécurité boo xam ne kenn du xam fan la tàmbalee kan la yem insécurité bi mu nar a indi Europe ba insécurité alimentaire bi mu nar a indil Europe bi mu nar a indil Europe actuellement mënees na te Europe lu ko daal daal ñu ndax ñun amaguñ autosuffisance autosuffisance ci wàllu dund ak noonu autosuffisance alimentaire amaguñ ko. Russie bi nga xam ne moom am nañ problème ak moom mooy Russie li li tubaab bi di bañ mooy ñaari force ci adduna bi xam nañu Russie incarne ñaari force guerre bi nag damay faral di wax képp ku koo xam ne xam nga fi mu su ko gañee maanaam bépp réew africain boo xam ne bëgg ngaa am sa moom sa bopp boo boo wéeroo ci sa boo wéeroo ci moom sa bopp te boo ci wéeroo na mi na ni France def Russie amul ndaw sax am xam-xam dañ leen di wax ne ay bourse ngeen dem France ngeen jànge bu ngeen jàngee ña ca nekk ay nit ñu brillant bu ñu waaw te wax na ko moom euh, Vladimir président Macky Sall demee mu ngi dem boo xam ne malgré nekkul sax euh, président boo xam ne ci misaal président bu compté ci adduna bi parce que France parce que tubaab bi ñoom ni lay compté ci ci sa ni ngay na ngay lay compté sa institution nan nga yi sa réew sa maanaam sa état naka la nekk état souverain maanaam ñun ci kaddu la yem mais boo xoolee ba ca biir newu ca loolu président boo xam ne bu président boo xam ne bu compté la ci adduna bi ku képp koo xam ne xam nga politique internationale li muy wax xam nga ne ñun Sénégal parce que problème mooy boo jëlee suñu alal xaaj ko xaaj kenn ko la ci am ko ba ba mu fa coupé parce que yooyu maanaam problème économie ba mu fa yàq loolu la xam ne mënatu koo koo daw par rapport ñun am problème économique dem gi nag baax na parce que dem na ci turu aw nit ba mu demee wax ne ma waaye ki muy waxal joxu ko benn considération ñi muy waxal joxu leen benn considération parce que ci adduna bi actuellement day fekk yow da moom sa bopp bu bare moom sa bopp ci économie moom sa bopp ci xaalis Poutine dafa joxul Macky benn considération xam na ne rek benn organisation la boo xam ne jël nañ ko teg seen kanam ñu ko jël nañ ko teg seen kanam ñu ko wax comme ni muy recevoir ñëpp rek benn organisation institutionnalisée nañ ko nekk nañ état yu souverain nii rek ci ay kayit nag mais nekkuñu souverain nii ci économiquement wala eh, ci seen ci éducation wala et cetera wala seen ressource naturelle ndax Macky Sall nee na ko ñun malgré jot nañ pression bu ne pression bu ne jot nañ ko ci bi ñu ne dañ leen di embargo ñii dañoo xaal séddlu ko ñetti xaaj ñii ne dañoo nangu ñun ñu ëpp ñun dañoo na nañ nañ ci neutre ñii moom dañoo ko ragal waaw ba mu paree mën na leen ñun di Russie ñu ngi taxaw ci waxtu wu ne ngir ngeen am seen indépendance seen Afrique waaye yow kuñ ne yow président bu ñu élire nga ci ay carte kuñ ne yow yow yaay président union africaine nga jàkkaarloo ko président mënal la la nekk Joe Biden dana dem Russie ngir nga am sa indépendance Pays-Bas danañ dem Russie mu leen di wax loolu problème boobu Poutine wax leen dalee na saaga saaga woo xam ne ci adduna mosuñu koo dégg c'est-à-dire mooy moomu leen seen bopp da ngeen a ñëw fii rek di théâtre moom xam na jotaay bi théâtre la rek théâtre képp wax naa Macky Sall ci jotaay boo xam ne ko seetaan bi amul kenn ku koy traduire wala muy bind li tax muy bind ñu koy traduire muy wax xam na ne day théâtre mu ànd ak moom day théâtre waaye diplomatiquement maanaam nañuy doxee ñoom seen état yi ni ñu ko organisé Russie ku leen xam xam nga ne ñëw Macky Sall éggu leen fenn parce que dañoo ñoom ñaar mook Poutine problème personnel parce que gaz bii nga xam ne moom la xañ euh, Allemagne xañ ko France xañ benn 5 pour cent la ci Sénégal ñu bëgg koo jël jël fii ay mbànd mu dem Europe direct di leen alimenté te moom moo leen doon jaay gaz am a ma ñoom problème problème bu nga nag du dem ngoo wax OTAN tubaab bi rek ñoo ko initié te xam na loolu bu baax ma doon benn cër ñoom man su doon maay ñoom boo fa rek sama tànk parce que nit bala ngaa wax ak ma doo ngeen bol nawloo te nawloowu leen li mu leen tontu te xam ne nawloowu leen mooy def naa loolu la ngeen moom seen bopp kon Mouhalim info du groupe information générale internationale ba tax mbooleem xew-xew buy xew ci biir réew mi ak ca bitim réew man ngeen ko fekk ci sunu chaine YouTube bii di Mouhalim info doxantul ci YouTube bi nga tàppe Mouhalim info bul fàtte nag abone bés kolos bi ci sa loxo ndeyjoor lii mooy waral dara dootu la raw ci liy xew ci biir réew mi ak ca bitim réew